mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu di leen dalal jàmm ci rajo Afia FM ñu nekk itam en collaboration ak waa Ndayane Vision te nag ci seen émission euh, sargal jigéen ñi ñu ci dalal nag ki nga xamante ne moom mooy honorable député madame Paye di Marie-Thérèse Aïda Seck euh, ñu fas yéene ko delloo njukkal nag ci euh, biile bés bi nga xamante ne dañ ko jagleel ñii di soxna yi ci présentation yi nag ngeen ci présentation bi ngeen di ci ànd ak kii di Mamadou Fall honorable asalaamaaleykum. waaleykum salaam Modou Fall maa ngi lay nuyu. di nuyu it jigéenu senegaal gi yépp ndax bis bi seen bis la di leen ci sargal sargal bi nag comme damay delluwaat jiital ci sama yaay jiital ci ñii ànd ak man di liggéey jiital ci it première dame Marème Faye Sall jiital ci it madame Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme. waaw ñooñu moom vraiment mënuma leen woon ñàkk sargal ñoom tamit ci journée bi parce que ñu am taxawaay lañu ci wàllu jigéen ñii ma nekkal di liggéey tamit ñu am taxawaay am ki sama kon nag am naa lu ma bett lool ndax xalaatuma woon ne ñoom loolu lañ may xalaatal may maa ngi leen di remercier du fond du cœur yow it Modou Fall ma lay remercier ndax li nga ma permettre may exprimer wu fii li nga ma permettre tamit loo xamante ne ñu bëri xamuñu ko woon ci man nit ñi xam ko ma la ciy remercier Modou. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax moom honorable député mhm. euh, madame Paye ñu xuus ci li nga xamante ni moom mooy tey ci mbirum honorable bi mhm. député nga ci mhm. commune bu Patte d'Oie euh, politique noo ci duggee honorable waaw loolu moom lu may sawar a wax la ba ma laajee ci anam boobu dama ci sawar a wax ndax politique duggewuma ci dara ndax man ci këru politique laa yaroo 18 rue Escarpe ku ko dégg ci politiciens yu mag yu yàgg yi xam ne QG la woon boo xamante ne ñoom Lamine Diack ñoom docteur Samba Gueye ñoom euh, autorités yi nekkoon foofu euh, yi nekkoon Dakar à l'époque des années à l'époque des années 60 euh, jëm 70 ñoom ñëpp suñu kër lañ doon regroupé wu. Mhm. nag doon milité nag ak PS. loolu loolu mu doon loo xamante ne ni vraiment. awma lenn lu ma si euh, yokk ndax même affaire confédération Mali bi bi muy tas bi muy def amoon na ay réunion yu daan am suñu kër ba muy tas tamit ñi nga xamante ne moom la nguur gi doon dàq sax am na ñu ñëwoon làqatu ndax dañoo demoon samay wéyjur dañoo demoon ba dañoo miinante woon ak ñoom ñu kii la bon nag mu won na ne man ci këru politique laa yaroo mais li ma yaroo yaroo ci këru politique taxul woon nit ma dugg ci politique. waaw à un moment donné bi ma dëkkee Colobane jàppale naa Seynabou Wade ndax Seynabou Wade vraiment. sama mag la sama sœur la moom tam mu jàppale ma bu baax ci difficulté yoo xamante ne nii dama ko am ci fa ma doon sëy mu jàpp si te seetul dara moom it amoon na à un moment donné jàppale naa ko mais taxul ma affiché wu. bi ñu demee nag ba 2008 ci bi président Macky Sall euh, amee problème yi ak Ablaye Wade waaw foofu nag laa toog di ko suivre ndax man duma dugg ci nit à la légère ma toog di ko suivre di ko xool di xool ay réaction di kii ma xam ne kii daal vraiment gis naa ci moom auteur quoi gis naa ci moom nit ku nite. ma ne nag ma daal di wax sama jëkkër comme man du ma faral di réeroog moom ma ne ko ah man de pay mun naa ma ne ko kii moom bëgg naa koo jàppale ma ne ma ah yow dangay politique ma ne ko waaw. kii moom ma ne man ko wowal Mbaye Ndiaye nga ne ko kii daal bëgg naa leen ñëw jàppale si la sama jëkkër wooyee mbay Ndiaye wax ko bu ma ko wooyee mbay mbay soldat la am ñëw seet si ma ànd ak Modou Mbaye mii tey Parcelles Assainies tey jii ci loolu lañ dem commissaire boobu fu nekk nag monté naa fa comité ba ci Guédiawaye biir département Dakar bi li ma monté ci ay comité maa ngi ak sama agenda yëpp ak heure yi ma ko monté ak waxtu yeeg yëpp defe naa ne bu amee fii commissaire fii ci biir Sénégal bu ma ëppale Oula njaay la waaye tamit loolu tam musuma ko étaler lu ma jël la denc la ndax samay archive la maa ngi ak samay document maa ngi ko téye tey jii bu ñu ma la woon génnee ko ma génnee ko te doon ay fen ndax résultat élection yi à bi mu génnee corroboré na ak lañ fa monte ci comité parcelle fii yëpp fu nekk dem naa fa monté ay comité ndax dama daan jàngale ji ba wàcc tëj sama kër defara sama njaboot sol sama daal dem samedi ak dimanche ak mercredi soir duma yendal duma fanaanal ci combat boobu la ñu nekkoon nekk ci nekk ci ba bi ñuy dem mille 2012 2011 mooy bi may démissionné noonu jaay sama bagage yi ñu dem élection 2012 waaw élection tam yi fa am ci diggante bi comme ni ma ko waxee woon fële rek Euh, responsable yi ñoom ñoo ko nekkoon doon ko jël en charge sant yàlla yàlla dem def ñu mille 2012 bi ñu gañee deux gagné 2012 législative yi ñëw yàlla def président Macky Sall tabb ma def ma nag ci list national loolu nag xam naa ne euh, taxawaayu Mbaye Ndiaye doon na si dara ndax ñu ma defoon si liste nationale en vingt e position nga xamante ne tey jii même su amoon ñu ma doon xeex sax duñ ci mën dara ba tax na ku mu ci naqari woon. wala nga amoon ci lenn loo xamante ne neexu ci tamit munoo woon ci dara doon na campagne par force parce que xamoon nga ne par la force damay jàll au passage tamit may remercier Mbaye Ndiaye ci taxawaay boobu ndax après mujjantal gi seytaane seytaane dox na suñu diggante ba lu bari xawoon na ci yàqu mais loolu yëpp c'est dans la c'était c'est dans la politique depuis boobu tamit may sant président Macky tamit sant sa sant euh, Mbaye Ndiaye ci loolu ci euh, député boobu ma demaat ba ci biir assemblée président yëkkatiwaat ma yóbbu ma UEMOA loolu tamit dama ko koy reconnaître moom it di ko si sant di ko ci gërëm ba léegi nii may wax ak yow maa ngi UEMOA fa falaa nekk waaw loolu yëpp nag mun naa am fay gu ma yàlla fay la ci liggéey mais ñoom tamit doon nañ ci dara ndax munoon nañ tànn ñeneen teg leen fa ndax gënuma woon fës ci parti bi gënuma cee néew xëy na doon naa liggéey liggéeyu suuf mais amoon ñu ma gën a fës gën a nekk au devant de la scène mais yàlla moom comme ni ko sama yaay waxee rek lu mu bind sa jër kenn mënul fexe ba doo ko am ndax munoon naa bañ a politique du ma wàññi dara ndax ba ma jundoo ba léegi dew ma dikkuma sama kër laa toog politique moo ma génne comme ni ko sama yaay waxee xëy na tamit lu ñu bindoon sama jël la mu war a am mhm. ndax lu nekk rek am na fu ko yàlla jaaralee mais li nga expliqué nii kon euh, est-ce que euh, jamono jooju fekk affaire am na wala amaguloon li ngay expliquer ni ci wàllum politique bi nga doon dugg yow ak ñoom Mbaye Ndiagne ngeen doon ci ànd ci mbir mi 2008 la 2008 ak 2012 APR am na kay alliance pour la république ñun mais ñun dekkal ngor lañ demee woon moom laa la bëgg expliquer noonu waay ah, dekkal ngor lañ demee woon APR la waay dekkal ngor la ndax ñu ngi demee woon dekkal ngor di récépissé Mahmoud Saleh mhm. Mahmoud Saleh moo amoon récépissé dekkal ngor moom la ñu demee woon 2009 moom lañ demee woon 2009 ba ba am kii yooyu après nag APR dafa am kii yam mhm. dafa am dafa am licence am léegi nag dafa am kiyam maanaam licence sax dafa am kayitam. kayitu kayitu partem mhm. ñu ànd donc moom ci APR yaakaar waaw. Ah. donc mun nañu wax ni euh, par exemple euh, honorable député euh, madame Paye donc ci parti APR nga doore li nga xamante moom mooy say yëngu-yëngu politique. activité politique. waay ci parti APR laa ko nekkee mais dëkk ci kër guy politique xam politique loolu ci laa judd. waay waaw mais ñu bëri xëj na nañu posé wu la question lan moo waral nga jël temps boobu yëpp xaar ba 2008 nga doog a soobu ci politique. waaw parce que xam nga comme ni nga waxee rek ni la ko ak sama livre yi may lire ku ma xam ci loolu nga ma xam Euh, euh, centre culturel français échanger ay livres wala ma romb la ba ñu ba ma ñibbee ba ma ñibbee jóge Dakar dem Colobane ma romb la dem rond-point Colobane échanger fa ay livres loolu dafa tiisal ay relation ba biir rond-point Colobane ñëpp ma fa xam ba léegi nii su ma fa duggoon dafay mel ni dara moo fa xew. ah donc muy tamit li nga xamante ne moom mooy euh, situation bu euh, xëy na ñu bëri jàpp ne euh, donc sa jaar-jaar moom moo tëdd noonu ci wàllum politique ci li nga xamante ne moom moo jëm ci tey poste bi nga xamante ne am nga ko ci biir partie bi mooy ñu gis ni que tey doon nga député. mais parti APR ak activités yi ngeen doon yi ngeen faroon amal yëpp daanaka depuis 2008 nga dugg ci politique mais je pense que bii mooy sa premier mandat ci ci ci ci ci deuxième mandat ci doon député waaw euh, d' accord euh, mais euh, tamit mbir mi est ce que xeej na politiquement jàppuñu woon ni xeej na poste bi waroon na am lu yàgg naam sax xam naa ni fu may delloowaat mooy ni ko xëj na sa sa wërsëg moo ci moo ci jotagut mais est-ce que nit ñi nga xam ne ñu nga doon àndal jàppuñu woon ni xëj na mandat yi waroon na jiitu lu lu lu lu lu njëkk loolu par exemple. mandat dama bëgg a wax yaa ngi ci deuxième mandat ci ci nekk député. waaw euh, ci ci ci ci euh, parti APR. Mm-hmm. donc ci deuxième mandat bi nga doon euh, dama bëgg a wax ni par rapport ak tànneef bi nga xamante ne ñoom la ñu dugal ci liste yi mhm. dama bëggoon parfois coow li da ciy bëri mhm. est-ce que yow situation boobu noo ko géré woon ak say àndandoo par exemple waa kay xam nga yow wax nga ma nag lu ma sawar a wax parce que deuxième mandat bi xeex la xam nga xeex moom mhm. ah waay ku jekk sa morom rek da ngay dóor mais ne deuxième mandat bi waay dama ci sant yàlla sant si sama waajur sant ci président Macky Sall diggal bu baax li ma lay wax. allez-y sant ci président Macky Sall. Mhm. dama si sant sama yaay. sant damay sant yàlla sant sama yaay sant si président Macky Sall. xam nga bu njëkk bi dama ne la. damay sant sama yaay sant May Ndiaye sant président Macky Sall. Hmm. bii na ma ne la dama si sant sama yaay sant ci président Macky Sall. sa yaay nga jiit nga jiital de. waaw yàlla laa jiital. ndeysaan teg si sama yaay. Hmm. teg ci président Macky Sall. Hmm. waa ci deuxième mandat bi. waay ñoom laa ciy sant. kon xanaa dafa am lu ci laxasu woon. waaw bëri na woon lu ci laxasu ndax xam nga politique moom moo demee noonu expliqué naa la ko. bu ñëwee ba ñu gis ne dara am na rek. tey jii yow ma ca nekkoon di liggéey jël sa xaalis ko ciy def ku ci nekk day ñëw taxaw pour écarter la affaire bi nag ci man. commencé na 2014 lu ma bettoon la bañ may xeex 2014 mais xaw ma woon ne dama yaakaaroon ne nit ku ne di nga am xalaat am fàttaliku ne de 2008 à 2012 yow fonctionné woo woon kenn gisula te musoo yëkkati sa dërëm def ci parti bi donc ki ñu defoon ci parti bi mu nekk fi ànd ak ñoom ba taxaw di yëkkati alalam di ko ci def defe naa ne bu xeex di jóg du si ñi mu àndaloon ñoo ko war a xeex mais dama ra dama ragal ne ña ca biti ñoo waroon jóg di ko xeex mais nag man sama côté ñi ma àndaloon ñoo jógoon taxaw di ma xeex. Ah. ci waaw ci biir xeex boobu nag vraiment mu am ñaar ñoo xamante ne tey jii kenn ki bi mu ñëwee sama kër keroog di wax sax dama ko ko wax muy ñëw wax ma ma jàppale ko ci benn kii bu muy wut benn kuréel bu muy wut di wax wax ma ne ko man yow loo jàpp dama si jàpp muy Tidiane Diallo bu Grand Médine ak Ahmed Thiam bu Grand Médine ñooñu. ci ñi ma doon àndal depuis mille 2008 ñuy ànd di lëkkaloo Amet Amath ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar Tidiane Diallo ñoo bokk parti APR ñoom rek ñoo taxaw ak euh, directrice bu bees bii di Aminata Sow laa gis ñu taxaw battre campagne ci mille di 2017 bi loo xamante ne ni c'est en ma faveur bu weesoo ñi nga xamante ne nii ñoo ma jege ñu mel ni ñoom madame Kébé ñoom Mariama Sarr ñoom ñi femmes yi noonu ñi may àndal sama kii di liggéey mun naa ne la Padois bu doon APR rek mooy mooy mooy mooy fal hmm? mun naa leen ne duma ma falu ndax population Patte d'Oie ñoo ma fal walla du parti APR parti APR ñii ma la ci seet ñoo si jàpp. Hmm. waaw. ah kon mu doon situation bu bu xaw a compliqué ci yow. noo compliqué wul. Hmm. parce que depuis bi ñu jéggee 2014 dama jëloon samay garde bi ñu jéggee 2014 rek dama jël samay garde ndax man noonu laay dundee gis nga su ma gisee ne kenn mënumaa xeex nag. ma xamal la ko ndax su ma nelee kenn mënu maa xeex mooy dama yëgalul ku may xeex sama yaram loolu sama nature la te yow bés bu ma dundee ba xam ne yow mii dangay bañ ma yegg fii day mel ni suba bu ma xëyee ci dox pour yegg ci loolu ngay bañ ma yegg man ci loolu laay dox soo gisee ma wax ko affaire bi depuis 2014 bi bi kii boo kuu boobu amee mhm. dama jël samay garde xam ne du si ñii laay yaakaar du si ñii laay wéeru ëllëg pour am deuxième mandat fekkoon na ma ma ne si population yi sax di liggéey ak def mais daf ma gën a renforcer ma gën a dugg si population yi te ba may dem ànduma ci ak ñoom doxuma ci ak ñoom maa ca demal sama bopp moo tax affaire bi nu leen bett la ndax fu ne dem nañ fa toog wax ne investir bi ma président ndax maa ngi woon ci liste départementale bi Dakar ci ginnaaw Amadou Ba man maa doon responsable départemental femme bi nga APR bi nga xamante ne moom lañ def si département Dakar du ma leen nettali élection département Dakar fii ci biir genèse élection yi nga xamante ne moo fi am xam nga ne département Dakar département bu critique la boo xamante ne nii dañ ko waroon a récupérer mais yàlla ak taxawaayu ak tànneefu président Macky Sall taxawaayu Amadou Ba ak ñi nekkoon ci list bi tax na list boobu liste boobu mujjee jàll loolu nag dinañ si remercier Diouf Sarr remercier si Amadou Ba remercier si ñoom Marie Pierre Paye ñoom Juliette Zenga ñoom ñëpp ñun ñu àndoon ci liste bi ñoom sant seen añ ñi nga xamante ne ñoo doon titulaire ku nekk nañ ndax ñëpp xam nañ ne département Dakar lu metti la woon waaye ba loolu taxawee fu nekk la ñu dem taxaw dem nañ ba palais ci kanamu président sax di ma fa di ma fa dénigré mais le président a tenu bon bu dul woon président nee naa la liste yi du ma ci ne dëggamam xaw ma nag lu ko ci yóbbu xaw ma ko ndax am na ñu ma toog di naan xeex la ndax dañ ne comme yéen yow yor coowal Dakar bi daf leen teg boo leen gañewul ñu dàq la ñii ñëw na ma déedéet il a confiance en vous loolu moom rek moo ñu ci mën a génn mais man dama jàpp ne ba tey rek il a eu confiance dafa xool gis ñi ko mun a gañeel mu jël leen teg leen far yàlla def si sutura ñu gañee mais tey jii am na loo xamante ne nii doxe woon na ko ci biir APR bu du woon APR ga taxaw ñu liste bi gagné de population yi ñoo tax liste gagné moo tax toujours may wax ne affaire bi du parti nit ñi la waaw mu ngook euh, émission bi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy teewlu jamono ji kon bii lee sargal mi ñuy sargal honorable député euh, madame Paye ci la ñu bokk depuis sànq ñu ngay yëglu kon egg nañu fi nga xamante ni itam dañuy ubbiwaale li nga xamante ne moom mooy ligne bi 88 euh, la 628 05 05 ñu jël ay réaction asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw sëñ bi noo tudd ak fooy wootee Abdoulahat Fall Lac Rose Abdoulahat Fall Lac Lac Rose waaw. waaw ñu ngi lay ziar bu baax. delloo ziar bu baax a baax damaa yéex a yëg émission bi nag ci bi rek laa ko gisee mais macha allah baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf bu baax ku dëggul lool nag laa lool. jërëjëf ndeysaan. maanaam dëkkandoo bu njëkk bi. waaw. sama sàq mi la lañ. Mm-hmm. nit ku baax ba yegg ci loola ngoo. ndeysaan soo doon may xalaat ay numéro téléphone mu ne ma Abdou. Mm-hmm. numéro yi du ma di dara du ma ko fay. Mm-hmm. ndax du ma du ma ci wax ma mënul du ma ci def lu ma mënul. woo ma jël na te dara changé dara changé wu ko. dëgg la maanaam ni mu daan doxee avant dara ba ba fi waxee ci la nekk. Mhm. yàlla na yàlla yokk jàmmam. dolli suturaam. amiin incha allah may ko gudd fan ak wér lool. amiin li mu wax rek mooy kenn kenn mënu koo xeex. ndeysaan ndax programme suñu borom kenn xamu ko. Mhm. moom moom am na baat bu ko nit mosoon a wax da ko ne xanaa xanaa monsieur Paye ba koy fal. ndeysaan kon yàlla pare na. Mhm. yàlla na ko yàlla yokk jàmmam fu fu mu ne ren rek yàlla nekk déwén bu ko raw. amiin incha allah sàmm ko sàmm njabootam gépp mhm. lu ci nit wax am na loo ci bàyyi. jërëjëf waaw njullit gi moom yàgg na ci. Mhm. macha allah mhm. yàlla na ko yàlla fal lañ koy ñaanal ak gudd fan wér bi ma gisee estati moom boobu ba tey maa ci damaa waroon damaa waroon génn fa dem kër ma lii laa doon xaar. ndeysaan dégg la jërëjëf tey a jotuma ko nuyu. ndeysaan ndeysaan ak jaar naa la bu baax a a allah jërëjëf waaw bu ma a baax. maanaam nag moo waaye kàttanu nañ ci yow baax amiin amiin allah jërëjëf tey moom invité ngeen ku mat invité. wallaahi baax ngeen wuti ut ngeen ku baax koo xam ne moom jàpp naa bu ngeen amaatee soxna su baaxee noonu du ah mu néew mu am de mais ah, jërëjëf kontaan nañ ci yow jërëjëf jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu ñuy wooyee depuis fale ci Lac Rose euh, zéro 628 zéro cinq dañuy jëlaat quelques réactions euh, su ko defee ñu mën a dellu siwaat takk suñu invité bi asalaamaaleykum. maaleykum waaw sëñ bi noo tudd ak fooy woote. sant yàlla bu baax alhamdulilah. tour bi naka la. waaw man damay euh, damay leb tur bi. da ngay leb tur bi honorable honorable mais est-ce dina la xàmmee. tey tey tey tey bu su wax tey bu su wax ci moom lu baax la. donc euh, moo moo tax nag ma bëgg. waaw moo tax it boo fasaloon boo fasaloon sa sa tour nag mu gën a neex. waaw non dina ma xàmmee. waaw allez-y donc waaw waaw jëggal nañ la ko bisimilah. Mhm. voilà donc euh, tout d'abord maa ngi sant di waa Asia. jërëjëf. parce que tey dañoo rendre hommage. Mhm. ñu demee ba ñu jël honorable député madame Faye. Mhm. Euh, invité ko di ko sargal ci journée de la femme. Mhm. donc dafay nekk loo xamante ne Sénégal lañ ko defal. jërëjëf waaye ñu ñu dëkkee Padois. dañuy mhm. jàpp ne ñun lañ jaral loxo. Mhm. donc euh, loolu ñu ngi ciy sant bu baax. jërëjëf. ñu euh, ngi ci ñaanal aussi. jërëjëf. man honorable daa fekk bi ñuy xamante yàggul. bokkuma parti mais dama nekk seen wet. ma nekk seen wet. di leen jàppale parce que li mu wax rek dañoo bokk gëm-gëm. président Macky Sall ñun lañu jiital ci lépp. donc euh, bu ñu gisee honorable euh, nekk ci aussi mhm. lépp loo xamante ne dafay defal foofu président Macky Sall ñun dañuy bàyyi lu ñu def aussi ñëw jàpp ci mhm. waaye boobu ba léegi aussi ndam rek lañu ci yàlla yu defal comme ni mu ko waxee mhm. donc euh, honorable aussi man lenn laa koy ne ah moom laa koy témoignel waay loolu dafa nekk loo xamante ne dafa doon qualité ci jigéen am na nag ñu koy bañ mais ci milieu bi mu nekk mooy am fit am fit loolu dafa nekk nit koo xamante ne Euh, lépp lu muy jiital fitam moo koy may. ndeysaan. lépp lu muy dugg aussi su ci amee résultat rek fitam moo koy may ak gëm-gëm. Mm-hmm. ak gëm may fàttaliku bés dañoo demoon euh, Grand Médine am coow lu fa amoon. Mm-hmm. ñu toog ci saal bi ma yësam ko oo ko nekk waa mais honorable lii moom loo ci gis est génn ñi bi mu ne ma déedéet nañ mm-hmm. toog ñi mën a mën a mën a luñ ma dara te li may wax dinaa ko wax. dëgg la. donc loolu fit moo koy def ak gëm-gëm. parce que boobu euh, jàppoon na ne ci jihaad la nekk. donc honorable ñun aussi ñoom lay Euh, nit ku baax la aussi parce que man euh, dama nekk ndaw. Mhm. yenn saa aussi xam nga yëfu ndaw rek am ci yooyu dugg. Mhm. bés amoon naa fi benn problème boo xamante ne ci moom laa ñëw expliqué ko. Mhm. bi ma ci expliqué daf ma taxaw daf ma taxaw ne ma jaaral fii dafa nii jaaral fii defal nii ba yàlla nu mu ciy wisee ndox bu sedd. donc loolu aussi ñun dañ ko koy teral. te di wax ne autorités yu mel nii lañ soxla. Euh, ñoo ngi leen ñu ngi seen ginnaaw di leen jàppale waaye ñun aussi dañuy laaj bés bu ñu amee soxla wala bés bu ñu amee problème mhm. ñoom aussi ñu gis leen suñu wet jërëjëf honorable kon ñu ngi sant bu baax mhm. euh, di ko wax ne ko waa cité di ko gërëm parce que saa yu ñu amee problème aussi gisoon nañ ko suñu wet jërëjëf mhm. donc euh, ñu ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla aussi comme li ñëpp wax déglu nañ seede yi ñoom madame Kébé Euh, madame Kébé dafa doon sama jigéen lépp lu mu wax rek ci honorable mhm. man tey su ma fa nekkuloon sax su ma ko waxee dama koy gëm parce que madame Kébé dafa doon kenn ci conseil municipal bi donc kenn ci commune bi mhm. ñu lay sargal bu baax a baax a baax ci journée de la femme euh, di wax encore lii bu ñu ko defee ci commune bi mhm. def ko ci département de euh, arrondissement bi wala département Dakar suñu ko defee rek defal nañ ko jigéen yëpp. ndeysaan. honorable su ma foog naa ci liste départementale la jàlle. Mhm. Euh, deuxième mandat bi. d' accord donc euh, ñun ñoo ngi koy sargal. jërëjëf euh, sant bu baax a baax a baax. Ah, jërëjëf bi wax ne ko ñun ñoo ngi si ginnaawam. d' accord honorable ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax. xam naa moom dina xàmmee kan la. amee naa ko d' accord waaw jërëjëf jërëjëf honorable. merci. ok jërëjëf ah. Babacar aussi ñu ngi leen di sant ah, di ñaan télé bi rajo bi. ba ay télé. amiin mu gën a yaatu ba képp toog ci Sénégal. naa sax ko déglu te liggéey bi ngeen def mën na leen ko may amin incha allah jërëjëf aha ñi koy jaajëfal bu baax a baax 88 628 05 05 ba tey jëlaat keneen asalaamaaleykum bonsoir oui sëñ bi noo tudd ak fooy woote maa ngi tudd Banda Diop maa ngi woote Padois monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax maa ngi leen fay na sant yàlla bu baax alhamdulilah alors je voudrais je voudrais participer à l'émission. bisimilah monsieur le maire yaa ngi en direct sur la 93 point 0. je pense je pense bien qu'on a invité honorable madame Faye. moom la ñuy sargal tey effectivement. alors je voudrais balaa may tàmbali. oui. Euh, féliciter la radio Afia. jërëjëf monsieur le maire. pour le travail euh, communautaire qu'il est en train de faire. jërëjëf. Euh, c'est félicitations. Mmh. bon euh, en fait euh, maa ngi ciy njëkkee madame seen directrice bi madame Penangan. oui. et jërëjëf. alors j'ai pas régulièrement le temps de venir vous visiter. dëgg la. mais ça n'empêche pas que je vous suive. effectivement. Mmh. Euh, et de rendre aussi un grand hommage au précurseur c'est-à-dire Souleymane Ba. wallaahi ndeysaan. yàlla na ko yàlla yërëm. alors je voudrais. indiqué euh, et apporté quelques témoignages. Pour les femmes euh, de la commune, mmh. de Padoua, mais aussi pour les femmes de l'arrondissement de la Padoua. Mmh. Pour leur manifester tout simplement à tout mon égard. Mm-hmm. et puis euh, rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xam ne mu commune mm-hmm. chaque composante en ce qui la concerne. Uh-huh. Euh, de l'autorité bàjjenu gox mm-hmm. à la députée comme on peut voir avec madame Maï mm-hmm. il y a aussi récemment une bonne promotion avec madame Aminata Sow qui mm-hmm. est un la déléguée générale euh, à la protection sociale uh-huh. je voudrais personnellement m'arrêter un moment et puis il y a aussi madame Baké euh, qui est au, conseil uh-huh. su ma tuddee femmes yooyu nag tudd naa ñëpp ba tuddaale adjointe yi nga xamante ni ñoom laa nekkal ci commune bi. dëgg la ak présidente de commission ak conseil municipal bi ak délégué de quartier yi sax yi nga xamante ni ñoom ay jigéen la. Mm-hmm. di wax ne suba seen euh, journée la. Mm-hmm. mais du du du le 8 mars kese mooy seen journée parce que demain en fait c'est la journée qui met en branle les droits des femmes. Uh-huh. mais je me dis que la femme euh, c'est c'est en fait euh, c'est un don de yàlla moo yàlla moo ko yàlla moo ko wàccee muy dund ci société alors li ma bëgg wax mooy way euh, rafetlu déjà ci ngeen dalal muy Marie Thérèse Aïda Seck way di wax ne c'est une femme de valeur femme engagé la et c'est une femme qui représente dignement la collectivité ou bien le département de Dakar au niveau de l'Assemblée nationale et puis di wax ne ku engagé la ci politique yi nga xam ne président de la république mi ngi koy def dëkk bi comme vous pouvez le constater moi je suis un collaborateur de Marie-Thérèse Aïda Seck je ne suis pas un membre de l'APR mais je suis un membre de la coalition Benno Bokk Yakaar mm-hmm. euh, parce que je suis un membre du parti socialiste mm-hmm. donc di wax ne ñu ngi def un travail bu am solo ci terrain bi mm-hmm. ñu ngi au chevet euh, des en des populations et de la communauté ñu ngi koy ñaanal yàlla nag vraiment euh, liggéey bi nga xam ne moom lay def au nom de la collectivité. Mm-hmm. yàlla fay une bonne rétribution moom ak euh, femmes yi nekk ci commune bi yëpp. amiin yaa rabbal aalamiin. ensuite euh, c' désolé que tey célébration bi tombé sous le contexte de la pandémie. Mm-hmm. coronavirus. Mm-hmm. je sais qu'on va le qu'on va qu'on va fêter sa un peu avec précaution. Mhm. mais di wax ni ça n'empêche pas que euh, euh, euh, gëm-gëm bi ñu am ci jigéen. ak li ñu bëgg-bëgg ci jigéen ak nas li ñu nas ci jigéen di wax ni nag li may terminer. Mhm. mooy gën a ñaaxaat njaboot yi ci wàllu salubrité. nga xamante ni c'est un contexte actuellement boo xamante ni c'est une politique publique. Mhm. nañu gën a ñaax njaboot gi te njaboot suñ ko waxee jigéen moo ko yore nañu gën a ñaax ci propreté sécurité d'accord et wax ne vraiment collectivité yëpp d'accord pare na ci pour ànd ak ñoom d'accord monsieur le maire mhm. d'accord merci bien jërëjëf jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, monsieur le maire Banda Diop bu commune bu Patte d'Oie euh, moo doon woote ni ni ki euh, sànq rek asalaamaaleykum waaleykum waaw soxna si noo tudd fooy woote man maa ngi tudd Oumy Bob dëkk Grand Médine ak Patte d'Oie. d'accord bisimilah yow la ñuy déglu. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. Euh, di kontaan ci invité bu ngeen invité mm-hmm. muy suñu député. Uh-huh. honorable député Marie Thérèse Aïda Seck. Mm-hmm. di suñu yaay di suñu xarit. jërëjëf parce que nag yàlla moo ñu boole. ndeysaan. ñun def ñu fi woon 2008 ñu ngi fi ñëw 2013. Mhm. mais dañoo ñëw mu ubbi ñu ay buntoom jàpp ñu comme ay doomam. ndeysaan yaatal ñu te buñ jógee woon beneen parti aussi ñoo mhm. fekk si leen. te yaataluñu kon day métti mais moom sama yaay la sama xarit la sama lépp la te nag jàmbaar la fii ci commune bi. Mhm. jàmbaar la au niveau département de Dakar partout. fu mu war a liggéeyal président rek ñu ngi ko taxaw di ko liggéeyal boole la ak fayda ak dëggu surtout dëggu. léeg-léeg dañuy dem réunion day wax dama koy piis dama koy xool comme man sama yaay la mais dafa maa ubbil kanam ba dama koo xaw a yàq bàyyi ma li ma war a wax dama koy wax moom yoru jikko politicien li mu la war a wax dala koy wax que hmm. mu nekk en public ka mu nekk euh, en privé hmm. ba pare nekk nit koo xam ne elle est très pieuse à chaque fois bu ñu demee réunion lu mu yëngu-yëngu que mu nekk ci commune bi que mu nekk ci département bi day bàyyi li ñu def dem julli jël temps virdu te loolu yaakaar naa ne bëriwul si ñun politiciens maa ngi koy allo ala woy ñu ngi lay bu baax a baax a baax waaw maa ngi koy maa koy remercier bu baax mm-hmm. di ko ñaanal fu mu egg ren yàlla na egg raw mm-hmm. man moom mënu ma wax ci moom mention mm-hmm. spéciale à moom rek di ko remercier bu baax a baax a baax waa commune bi yëpp kontaan nañ ci moom jërëjëf ok merci merci bien jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, ba tey 88 628 05 05 88 628 05 05 mooy bu mu jokko bi pour nga xamante ne ñooy euh, bëgg a euh, participer kon ci émission bi rajo Afia FM ngeen di teewlu xanaa delluwaat rek ci ki nga xamante ne moom mooy suñu invité bi par rapport ak quelques réactions yu jot jëlangum ci kanam incha allah ñu xaaral aussi ñeneen honorable dégg nga quelques réactions yi nga xamante ne jot nañ fi rotangum. Euh, loo ciy tënk mu balaa ñuy gën a xuusaat ci waxtaan wi. waaw di leen remercier ñoom ñëpp rek si témoignage yi ñu def. Mhm. comme li ma la ko waxee rek. ki si jiitu du ab Fall moom mun na ci wax lu bëri ndax avant ñuy ñëw élection moom laa loué woon mu nekk euh, di jaay aluminium sama kër ci suuf mais li mu daan fay weer pratiquement daan naa ko jël lekk ko. yàgg mhm. ndax affaire di defar politique bi rek ak di defar di social moom moo tax mujj gi dama daan ñëw sax mu ne ma. waaye yow nag astu nag kenn du leb di maye nag leb di maye moom amul fenn mën na ko des fois situation yi ñu lay posé la boobu fekk ñëwaguñu sax ñëwaguñu sax ci nguur gi. Euh, di di féliciter monsieur maire di ko remercier moom tamit te di ko encourager ndax monsieur le maire ku ba ku jara encourager la boo gisee ma wax ko mooy ne dafa jóge fa mu nekkoon ñëw ànd ak ñun ci benn bokk yaakaar loolu di courage ndax bu manqué woon de courage wala mu am lu mu ragal du ko def. mais dafa ñëw ànd ak ñun ci benn situation bu critique fekk ñuy dem élection présidentielle fii ci commune critique ci commune de la Patte laay wax ndax am bari woon na ay wax waxi sew bëri woon na ay ay euh, ay lobby pour affaire comité électoral bi ba déggoowuñ ci far moom mu ñëw bi mu ñëwee jël ko doxal ko ba ñu am élection yu apaisé loolu ma ko ci remercier di ko remercier tamit ci taxawaay bi mu am bi mu jëlee ànd ak ñun ba tey ndax lépp loo xamante ne moom la directive moom la président jox rek ci politique rek mu ngi koy jéem a appliquer ci commune bi sonn ci dox ci du ko ci wax lépp lu ma ci sonn yàlla na ko ko yàlla fay. keneen ki nag di umi bopp kooku sama magu bopp sama doomu bopp la am na lu ma wax ci moom xam naa boo leen ko recevoir wax bi dina fen dootuma si dellu si. ki joxewul woon turam tamit dañuy yàgg ànd. ci commune bi comme joxul woon turam du ma du ma wax turam mais moom it mu nekk xale bu dëggu bu engagé bu bëgg a liggéey fii mu nekk ni dafa liggéey du kenn saraxu ko daf ko mérité te yàlla na ko yàlla jàppale moom moom ba mu doon dara ci commune bi ëllëg ñu koy dégg ndax dina ko mérité ndax mën na sonn si nit engagé na sonn na nekk sur le terrain liggéey ba ñu dalee ànd benn Bokk Yaakaar ba tey ah musuma ko xam ci yaafuus mun ngeen bañ a bokk nag ay gis-gis wala ngeen bañ a bokk ni ngeen tëdde waaye toujours taxawaay ba mu war a am ci jàpp daf koy jàpp moom ak ñeneen ñi ñi ñu àndal ci Benno Bokk Yaakaar du ma ko tudd parce que dama koy bañ a identifier comme doo comme identifier wul mais ah. xam na ne moom xam naa li muy wax ma ne xam naa li muy ah. wax moom di ko ñaanal yàlla yàlla jàppale waaw ñu jël ki asalaamaaleykum allo oui Babacar waaw sëñ bi noo tudd ak fooy woote waaw man maa dellu si waat maa euh, ki muy wax noonu ci joxewuloon turam euh, comme li ma ko waxee rek man dama ne ma moom honorable dina xam kan la allez-y waaw dama ne honorable dina xam kan la pour man euh, dina wax sax tur bi man la euh, Farba Dieng Sarr di président comité de santé bu comité de développement sanitaire bu Nabi Choucaïb. d'accord Farba. Euh, uh-huh. nekk conseil municipal bi aussi. Uh-huh. donc honorable dama bëggoon bàyyi rek moom mu wax tur bi kan la xool ndax dina xamee kan la. donc lii mooy wane ne que firndeel ne que honorable ci boppam. Uh-huh. Mm-hmm. waa mu ngi mu ngi bàyyi xel bu baax donc mooy li monsieur maire wax rek. kon mm. honorable ñoo ngi lay sargal encore une fois de plus Mm-hmm. te xam nañ ne bu nga la sargal rek nañ euh, femme commune bi yëpp donc euh, ñu ngi lay santaat encore une fois. jërëjëf di ma duggaat ci émission mm, ñu koy jaajëfal bu baax di wax ni aussi euh, ñeneen ñi mën nañu jaar ba tey ci 88 628 05 05 bu ñu ñëwee tey par rapport ak li nga xamante ni moom mooy foyer bi ni nga koy gérer ak politique bi ñu gis ni que ci ay kaddu wax lañu ne femme engagée nga donc loolu ak politique bi noo koy boolee tey par exemple. femme engagée. non c'est-à-dire tey wax nañu ne euh, da nga di femme euh, bu engagée c'est-à-dire boo duggee ci mbir dañ nga ciy dem ba jeex takk euh, nga nekk aussi ci ci ci ci foyer bi n'empêche que yaa ngi gérer bu baax li nga xamante moom mooy sa foyer tey noo ay li nga xamante moom mooy foyer bi ak wàllum politique bi. waaw xam nga loolay avantage su teel a sëy. Mhm. ba may sëy 19 ans laa am xaw ma 18 ans da ce fait que fi ma toll fi politique bi ñëwee ci man dafa fekk samay doom màgg nañ. nekkatuñu xale yoo xamante ne da ngay am charge di nga am droit de regard doom moom boo ko juree. Mhm. di nga am droit de regard ci moom lu bëri ba ba muy mag. mais dina am benn instant critique boo xamante ne nii doo mun a wacc sa doom déplacé wu stade boobu dama ko dépassé ndax comme ni ma la ko waxee dëpp bi ma sëyee en 84 ba ni mu ñibbisee fii en 2003 mun naa ne la Dakar gii Dakar dakaar mhm. daan naa toog ay at sama tànk du fa jam ndax dama yoroon ay xale. nekk ci kër gu difficile daaw ma génn bi ñu ñibbisee fii si laa soog a en 2003 si laa soog a sax di gàmmu ji wala may am feneen fu may dem mais depuis ba nekkoon di sëy si yor samay doom musuma nam ma dem fenn sama kër rek laa mos a toog su ma génnee marché laa dem duggi ñëw wala añ ba pare jël samay livre aw yoonu rond-point Colobane dem échange samay livre su ma ñaatee duggaat sama biir nekk dew ma ngénte dew ma takk dew ma dëj dama lay wax rek. ma lay wax li am. Mhm. gis nga lépp lu jëm ci affaire mbumbaay yooyu musuma ko dund. tey tam politique bi tamit yóbbuwuma ma dund ci bien que nag ku ma yëgal dinaa jël la ma mën def ca taxaw ca wax ca la ma ca war a wax def ca la ma ca war a wax waaye taxul ba tey ma xuus ci ay mbaboor waaw li ma allié nag sama sëy sama jëkkër yàllaa ma dimbali polygame la. Mhm. xam nga góoru polygame moom dafa yomb a mhm. bu nekkoon monogame si ngay mën a am ay état d'âme naan maa ngi ko fiy wàcc maa ngi ko fiy kii. waaye comme bu dul yow du feneen sumbul bañee laa may nangu kooku moom dina neexew ci si kër bien que nag munoon na nekkee noonu sax te mu bañ ko mais nag daf ma ko nangul parce que nee naa la ca njëlbeen wax moom moo jóg dem ci mbay Ndiaye wax ko la ma la ma mbëbët ci ànd ak ñoom xam nga ne bon nangul na ma ko. Mhm. mu bàyyi maak nag moyen xam nga maa ngi la naan léegi Abdou Fall dama doon jël euh, location bi di ko lekk balaa weer bi di dee. Mhm. xam nga loolu bu ma ko sama jëkkër permettre loolu ko def. ma ne la pàcc kër gi dama fa doon ñëw yëpp moom la maanaam nangul na ma parce que tamit yàgg nañu ndax ba fi may toog nii presque on est à 34 ans de mariage ça c'est pas rien am nañu ay jaar-jaar xam na may kan man tam xam naa ko am na lu ma nangul ma nit am na lu ma ko nangul pour wan na leen rek ànd complementarité la ak concession te moom yàlla loolu may nañu ko fa njëkkoon dëkk moo gënoon métti te suñu ànd def ci ànd dëgër parce que dañuy wax dëgg dañuy waxante dëgg ñun ñaar ñëpp man na ku ma nekkal ak noo mënta tollu damay waxante ak dëgg si moom. Mhm. Euh, bu dee ci kaaw social bi aussi euh, di li nga xamante ne moom ngay def ci commune bu Patte d'Oie euh, xëy na yaa ngi koy def aussi ailleurs ndax nag ñun ñi nga xamante ne ñoom la ñu jot rek daal di kon waxtaanal lu ñu wax moom la ñuy taataan itam mooy ne que gis nañu ne da nga fay investir aussi ci lu bari ci li nga xamante moom mooy ci wàllum social loolu aussi loo ñu ci mën a wax. waaw li may investir si laalu social moom loolu jiitu na sama politique. comme ni ma la koy expliqué ak magasin yooyu ci suuf loolu ba ma koy def. ñun gagné guñu 2012. man la ma doon def si social loolu dama gis ne xëñ na yàlla moo ma bindee noonu nit ñi di riir di ñëw ci man di ma wax seeni problème ndax man doxuma jéego yu tax nit ñi di ñëw di ma koy wax. defuma ko dara mais dama yaakaar ne mbiru yàlla la moo leen di yebal ci man pour ñu ñëw te man tamit bu ñu ñëwee. la ma ca man taxaw dama ko cay jéem a taxaw ci ci doole bi ma yàlla may muy ci kàttan muy ci muy ci wërsëg waaw loolu moom xam naa dama ne rek lu ma yàlla jagleel la loo xamante ne nii moo xëy nit ñi ñuy xëy di ñëw ci man loolu moom mënu ma ci dara te jéew ma sax comprendre lu tax hmm. waaw damay ñaan yàlla rek saa bu ñu ñëwee nañ fekk rek ma mënal leen kalabaas yi nag waaw kalabaas yi moom hmm. xam nga loolu politique la bu ma doon politique si département Dakar ba instauré ko woon nag far yàlla def mu am ay rëq-rëq jotul def ni ma bëggee woon mu dem demewul noonu mu am nag ñu bëri ñu ko jël commencé ko dérouler mais ñoom tam ku ko jël tax na mu war a doxee doxewu ko ndax man dafa am kii bu ma ko defaloon dafa am feuille de bu ma ko defaloon nam namoon ko ca te defuma ko ca ca laa jóg nag après di ko animer par secteur ku mu bëgg ku bëgg boo ma waxee rek ma yëkkati la ma am dem yóbbu fa jàppale la waxtaan ak say euh, euh, say membre euh, kii leen xiir leen ci ñenn saa yi dama leen di wax ne bon ñëwuma yéen pour politique ak yéen mais soo leen ma jàppalee ci politique ma jël parce que man damay politique mais comme dañu nekk ci développement ngeen doyloo sama xel di am yoo may laaj dama leen di teg ci yoon bi jàppale leen waaye it man doon naa bëgg bu ma leen soxlaa ngeen ñëw du forcer nag ku gis ne mën nga ma jàppale nga ñëw ku si ci santewul sa bopp it du tere boo amee soxla walla dara lu la jaaxal nga ñëw ndax politique yëkkatewu ma askan wi ma yëkkati. Euh, ci euh, li nga xamante moom mooy sa euh, jaar-jaar. jot nga itam euh, jàngale mhm. tey ci wàllum jàngale loolu euh, ban souvenir moo la ci marqué ak tamit loo ñu ci mën a wax par rapport ak sa jaar-jaar ci wàllum en tant que jàngalekat waaw loolu moom dama lay wax euh, li indi jàngalekat bi njox jógewuma woon sax pour loolu bien que nag mhm. bi may def naa concours jàngale CFPP ba tey yàlla def na musuma jàll waaw bu ñu ko daan def CFPP di ko defee Tilène. Mhm. mooy Tilène école ñoom ay alsan kii foofu mooy école marché Tilène bi noonu. Mhm. dem naa fa ba taay def concours jàngale mais yàlla defoon na musuma jàll. man daal euh, c' était en deux mille neuf cent quatre vingt dix neuf euh, mille neuf cent quatre vingt dix neuf deux mille je pense non c' est deux mille deux mille la waaw. Awa Guèye bi mu nekkee ministère de la femme dafa amoon sama benn mbokk moo doon kii am comptable matière. sama maam sama avenir dëkk teniroon en compte à ndax li ma doon jàng bëgg jàng te ma yeggali sama sama sama ki jàng ndax sëy bi daf ko da ko doon mu demoon posé ko ko kooku ne ma naa ko indil euh, xaw ma benn attestation de service léegi man comme sama doom yi Colobane 2 laa leen inscrire woon ñu fa doon jàngee ma xawoon miinante directeur bi ma dem wax ko ko quoi ma ne ko man daal monsieur Mbow ma koy saluer au passage lu ma am tey mhm. ci diplôme jàngale moom la ndax daf ma daf ma gëm ba teg ma ci yoon dama lay expliquer jaar-jaar boobu nga comprendre naka la demee. oui ba may wut attestation de service bi mu ne ma non mënuma la defal nii rek attestation de service nii rek il faut nga ñëw ci école bi nga toog fii 3 mois wala 6 mois nga xam kii waa quoi yu métier bi nga soog a dem mais pour nga ñëw nii rek ma defal la attestation de service loolu du mën a du mën a nekk daal mun ne ma léegi ma dem wax ko sama jëkkër sama jëkkër ne ma ah garaawul mun nga dem. si laa ñëwee nag mu boole ma madame jaara yoroon sëy yi ma dem toog si classe kooku di participer di xool di participer di xool di bindoo après mu boole maag beneen femme bu nekkoon ma madame Fall ma demaat toogaat ci classe kooku tam di participer ba ñu toll si war a defar fiche. léegi nag su ma xëyatee mu ne ma boo ñëwatee balaa ngay dem classe nga ñëwal ma jàngale la nu ñuy defaree fiche ci fiche yooyu ñu doon defar nag ci la ma ne ah yow mi daal dafa mel ni yow da ku am niveau nga man ne ko si mu ne ma dama bëggoon nga présenté wu CAP ma ne ko waaye yow sa maître yi nekk fii di ko def di échec mën nga kii mun ne ma noo man xam naa ne sa niveau baax na war nga cee mën a kii d'après ni ma la gisee ngay defaree fiche yi mu ne ma yaakaar naa ne mën nga kii après man ñoom ma dem fekk bi ma nekkee salle ñoom ma dem jaara ba dem fàlle ma doon bàyyi may pratiquer léegi nag mu ne ma léegi da ngay dem inscrire mu yoon mu wax ma ma dem inscrire si si inspection bi inspection bi école bi ñoo kii. benn waa ji ñuy wax Jibril Seck waa ju baax moom tamit moo fa nekkoon quoi ma ne ko ah na de Mbodj moo mën a ñëw ne naa inscrire ci concours CAP bi wax naa ko sax mu ne ah, defar yàlla baax na xam nga li wax si laa nag demee kii nag concours bi jot ñu defee ko école maa ngi pas la pay mhm. mais bi ma demee man maa ngi doon jàng si ay fiche su lecture fiche su kii ni ñu koy waxateeti ay langage fiche courant yi daal. ñu jëm ñu jox ñu fiche dessin biñ ma joxee fiche desin bi sax musuma ko def xaw na ma perturbé. xam nga ñi woon ci salle ba yëpp di xultu di kii man ma toog waa jël sama temps une heure de temps réfléchir bi ma réfléchir comme déroulement cours yi pratiquement ñoom ñëpp ñoo yem ci loolu daal laa defee esquisse def sama brouillon def yëpp range ko daal di ko déposé ñu toog dellu siwaat école fekk boobu Bamba Mbaxaan zone B ecole Bamba Mbaxaan bi nekk zone B amuñu woon maîtresse su seppee amuñu woon maître seppee seen metre bi dafa feebaroon xaw ma amuñu ku ko remplacer xale yi di toog noonu te kenn indiwu leen euh, kenn kenn kenn ku leen remplacé directeur bi du xam naa jooytu ko Mbow doon waxtaan ak Mbow Mbow ne ko am naa benn femme bu kii bu nekk Colobane kaa ma yónni la kaa yónnee la ko mu jàppale la si classe yi ba sa maître ñëw mu ne ko awma lu ma ko fay Mbow ne ko kooku du la fayee ko effectivement falaa dem nekk fa jàppal ko classe bi du mois de janvier au mois de juin CP bi te kenn joxuma dërëm mhm. ba ba maître suppléant bi waroon ñëw jël classe bi ñëw jël classe bi ci noonu la ñu toogee di liggéey ba benn bés ma toog rek waa inspection woo ma bi may dugg si maa ngi déglu inspecteur Mbengue ak sekk naan moom la kii naan ko waaye mënul lekk moom mun ko waaye yow kii ne ko nee naa la moom la. mu ne ko turam bii tur bii moom rek la moom la kii moom la. maa ngi dugg di leen dégg ji wax mais xaw ma li ñuy wax ma dugg rek jib sekk na ma yow noo tudd. man ne ko man Marie Thérèse Aïda Seck mu ne ma ko waay nee naa la moom la mbéy nga taxaw di ma xool mu ne ma waay yow yow yow yow yow yow jàll nga ma ne ko jàll mu ne ma sa examen bi nga defoon ma ne ko ah mu ne ñetti ngeen yéen a jàll euh, kenn ñaar ñi français la mu yow ak benn un certain Fati kenn ki arabe la yéen a yéen a jàll ci ci ci session bi affaire bi daf ma sax jële kaw léegi nag ci biir loolu école bi yëpp di ko coow man daal ma toog rek na pat léegi nag mboobu mu ne des na nag léegi inspecteur yi ñëw seet si la foofu tamit au passage dinaa saluer intervention inspecteur Thiam. Mhm. ndax bi ñu ñëwee ba ñëpp toog amoon naa ay trac ba di def ay erreur mais ndeysaan dafa comprendre mais xam naa tamit engagement bi ma demee moom moo ko ci yóbbu ba bi ñu ñëwee seet si ma si école bi pour épreuve orale la xaw ma nu mu ko tuddee vraiment je m'en suis sortie lii daal moom ma may sama CAP grâce ak yàlla ak euh, monsieur Mbow ak sama mbokk bi nga xamante ne moom moo ma doon wutaloo attestation de service bi. entre temps kii wàcc Awa Gueye wàcc mais man tam ma continuer si la ma ndooy ne fonction publique bi du la mën a jël mais mun naa la orienter si la ma orienter école cëriñ privé ma ne fa jàngale fa ba ma fa jógee ma dem Mariste ba ma jógee Mariste nag si laa ñëw Mirador fii Padois si laa ñëw nekk Mirador Padois Mirador Padois boobu fa laa toog ba 2011 bi ma naan sama directeur damay démissionné ndax damay dem campagne pour politique pour jàppale président Macky Sall. xool xool xool la bu baax bi nga bi nga ne sa directeur da ngay da pour dem campagne lan la la wax. xanaa di xultu lu ne wax na ko lu ne wax na ko waaw nangam politique jarul lii nangam nangam ba léegi sama collègue yi nekk foofu sax dañ ma naan yow mi nga xamante ne nii tu as tu tout bàyyi sa carrière ak yëpp ndax ndax politique. ma ne ko waaw parce que man gëm-gëm demee mhm. man su ma nekkee si dara si loolu laa nekk bu ma ci génnee rek génn naa ci. waaw mënuma woon allier di politique correctement di jàngale correctement mënuma ko moo tax j'ai préféré bàyyi jàngale bi dem nekk si terrain bi di politique mhm. euh, tey euh, ñu ngi ci bës bi nga xamante ne ñu ngi ciy sargal jigéen ñi en tant que tey euh, benn femme leader mun nañ ko waxee noonu ngay yëngu ci wàllum politique taxawaayu jigéen ñi tey par rapport ak Sénégal ci bépp fànn noo ko gisee ak tamit ban message nga ci lancé xanaa taxawaay bu rafet rek di ñaan yàlla mu jëm kanam di ci sadd tamit autorités yi ci jàpp yëpp pour jigéen gis boppam en l'occurrence le président Macky Sall en l'occurrence dama koy wax ñi fi nekkoon ñoom maire ay Mbodj la société civile ñëpp si ñoo xamante ne nii da nga taxaw rek di jàpp pour euh, jigéen am ndam ak euh, madame le ministre Ndeye Saly Diop taxawaay bi mu ci am tey jii taxaw moom tam ci lépp rek gis nga 8 marsam bi nu mu ko ni mu ko tuddee je de la génération égalité levez pour nos droits yooyu yëpp jox jigéen ak te man nag euh, loolu dama siy dellu tey si journée 7 mars bi di sargal suñu famille jàmbaar yi nga xamante ne ni ñoo doon waa Ndeer. Mhm. nga xamante ne ni revendiquer seen droit ak seen honneur moo tax ñu immolé wu par la feu ndax di bañ waa jigéen dafa war a doon bañkat du góor rek war a doon bañkat mais jigéen tamit dafa war a bañ dem kat bañkat ndax olof a ko wax nee na góor baax na jigéen baax na comme góor baax na jigéen baax na ku nekk nag taxawaay ba ñuy séntu si yow war nga koo am taxawaayam dafa yaatu parce que moom yaay la ndey la euh, maam la cousine la lépp la bon taxawaayam war naa yaatu ndax boo ñàkkee yaay war ngaa gis tante wala nga gis maam wala nga gis keneen ku analogue moo tax léegi nag ba may wax tam bu ñuy wax tam ci égalité dama naan nañuy préciser toujours ne égalité dans le droit waaw dans le droit ou bien dans le travail parce que loolu tam dafa am solo parce que am na ci benn fànn boo xamante ne nii boo fa waxee égalité loolu du mën a nekk moo tax toujours je damay wax toujours dañ koy dañ koy prési euh, préciser ndax mu bañ a indi ay amalgame di remercier nag président Macky Sall ci yi mu avancé notoire yi nga xamante ne ni moom la jigéen ñi am su magistère am muy application loi sur la parité muy loi sur la nationalité muy le foncier aux femmes muy bii tam nga xamante ne moom la mujj def muy criminalisation du viol et de la pédophilie loolu nag moom mu doon li nga xamante ne nii lu neex si xolu jigéen ñi parce que jigéen ñi dañ ko doon dund mu doon trauma boo xamante ne nii du ñu xam kañ lañ koy yénneeku mais li ma doon wax keroog rek di ko lancer appel ci euh, les violences faites aux femmes surtout dans le milieu conjugal ou dans le milieu de travail loolu it bëggoon naa mu criminaliser ko di doon ko ko ñaan keroog maa ngi koy wax di ko lancer message bi dama ko koy lancer waat tey bëgg naa mu loolu violence conjugale ndax boo gisee tey jii violence sévice sévice yi nga xamante ne nii corporel wala moral yi nga xamante ne moom la jigéen di dund ci biir sëyam ci biir néegu sëyam dafa métti te loolu mën na ko perturber ci lu bëri de ce fait loolu war nañ ko ci jëlal garde ba jàppale ko ci bu dul si anamul loi tamit ñu xool benn fànn boo xamante ne rek góor du sañati jàpp jigéenam ci biir kër di ko traité nee na li Assemblée nationale tey en tant que jigéen noo koy dundee ci Sénégal léegi nag mu bëri coow de. waaw xam nga assemblée moom de nature dafa war a bëri coow. Hmm. parce que foofu ndajeek ay xel yu bokkul la. ndax da nga ñëw du mouvance présidentielle ba mu ñu bokk benn mouvance fa de hmm. ñii dañu ne fii ñii jóge fii ñii ñëw daje. donc defe naa ne te fa la ñuy décider ni dëkk bi di doxee ak na mu war a doxee fa la ñuy décider tamit li war a am ci dëkk bi. te loolu nag su amee mu am ñoo xamante ne dañoo waroo ay gis-gis nekk fa defe naa ne du yomb pour du am coow foofu par excellence dafa war a am coow parce que loolu mooy démocratie bi. Euh, ci li nga xamante ni moom moo jëm ci euh, li nga xamante mooy say ambition euh, loolu faaw ñu ñëw ci xeej na peut-être lépp nag xam naa sax tontu li nga ma xam li nga ma ciy tontu ndax nag xam nañu <laughs> xam nañu la <laughs> mais du tee ñu ñu ñu jox la laaj bi rek mooy ni est-ce que par exemple tey personnellement am nga ay ambition par rapport ak commune bi walla ci leneen. non xam nga. man bu ma amee ay ay ambition tamit. Mhm. comme ni ma la ko expliqué woon rek su ma amee ay ambition tamit dafa am fu ma bokk. te gis na nit kenn du joxe bopp rot ci làmmiñ xam nga danga bokk ci benn groupe yow neewoo singleton mm-hmm. boo nekkee singleton am say ambition nu mu lan neex mun nga ko doxee nga dundee ko kenn yoon kenn newu ci mais boo nee dama nekk ci benn groupe mu am idéologie bu ñu teg mu am yoon wu ñu teg nit ñi du fa jaar loo am am loo bëgg danga nga a tënku ci yoon woowu loo am am loo bëgg danga nga war a toog ci loolu soo ko mënul nga génn waaw comme mën nag tollooguma ci fu may amee lu may naqari bay génn dama toll si topp les lignes directrice de mon parti moo tax sama ambition bu ma mënta am tamit dama koy teer toog di déglu ki nga xamante ne nii moom laa joxoon bopp. Mhm. waaw. Euh, mais du ñàkk tamit ñi ngay àndal tamit ñoom ñu ne la ah ñun de buñ sañoon honorable nga defee nii defee nii defee naa. waaw xam nga ñoom li leen sañoon waccu ma fi. Mhm. bu ñu sañoon ñoom. bu sañoon ki nga xamee ne moo ma teg fi ma ne. Mhm. ne ma nii laa bëgg nga doxalee ma kooku laay déglu. mais du tere ñoom buñ mënee bu ñu sañoon ma ne ah man kat diw président nee nga ma nangam waaye ñi may àndal nee nañu bu ñu sañoon nangam lam ma ca waxit loolu laay dellu fekk naxanteeg ñi ma nekkal ci suuf ba gis loo leen ni président gisee. Mhm. d' accord euh, tey par rapport ak euh, li nga xamante moom moo jëm ci mbirum jigéen ñi ba léegi euh, sànq wax nga ko par rapport ak parité bi ak yeneen ak yeneen mais nit ñi jàpp nañ ba léegi xëy na jigéen ñi ñoom ci seen bopp tamit nu ñu war a mën a gën a jàppalante xëy na peut-être par rapport ak seen naataango jigéen tamit dafay xaw des ndax waaw loo ci wax loolu fiiraange la rek mhm. xam nga bu njëkk ba léegi tane na sax ni jigéen ñaa ngi am hauteur mhm. mais bu njëkk ba da nga doon gis jigéen sa moroomu jigéen di si dara nga bàyyi ko fi dem jàppale góor loolu taxoon góor yi am doole dem jàppale góor ñi parce que jigéen fiiraange dafa am ci fu dafa am ci sëy dafa am ci ñaar ñu bëggante dafa am ci ñaar ñu nekk te bokkuñu ay wërsëg wala yem taxawaay wala bokk ca la ñuy nekk toujours bu ñu loolu amee di nga gis ne loolu moom moo koy indi ba tax na jigéen ñi dañu amoon euh, ki culture boo xamante ne duñu nangoo jàppale seen moroomu jigéen ñi pour ñu avancer boo gisee affaire yi bloqué ba tey loolu la mais tey ji am na benn xalaat boo xamante ne bu ko jigéen ñi amoon xam ne ñoom bu jigéen avancé nga bañ a gis ne man la mais kiiwu jigéen ngay xool dangay xool statut jigéen nga xam ne jigéen la yow su avancé yow yaay avancé ndax ce sont les mêmes droits sa moroomu jigéen droit bi mu am moom nga am sa moomu sa moroomu jigéen li ko nangul yow tam moom la ñuy nangul parce que itam jigéen nga comme moom mais ñoom dañ doon xalaat en tant que personne xalaat en tant boobu nag moom mooy indi problème seen bopp te xam ne bu ñuy xeex di def ay loi ak lu ñuy mënta def bu ñuy xeex tamit teg si yenn position du parce que yow la mais parce que li nga représenté la loolu la nit ñi war a def seen bopp tant que nit ñi defuñu seen bopp nit ki combat bi c'est un combat de genre wala nga ne c'est un combat de euh, pas combat de euh, de de kii c'est un combat de genre mais pas combat de personne automatiquement ku nekk di nga xam fan ngay war a taxaw parce que tey jii bu ñu boo ñëwee gis sa euh, Euh, nga am sa benn dëkkandoo xëy na jubóo la nga gis jëkkëram di ko dóor nga kontaan si bu ëllëgee tam yow tam mën na laa dal te bu xeex bi jógee ñu naan di xeex violence yow tey jii moom bu nekkee député wala porté ko di ko kii nga xeex ko bon defe naa yow tamit doo avancé te defe naa jigéen ñi dañu war a jàppale jigéen fa mu ne ndax ñoo bokk li ñuy xeex te ñoo bokk li ñu doon. moo tax fu jigéen nekk rek jigéen daf ko war a jàppale. mu ngoog euh, li nga doon wax yëpp euh, xëj na c' est sur le plan national léegi nag bu ñëwee sur le plan communal. foofu ci Padois bari ngeen fa yéen soxna yi nga xamante ne tey yéen a ngi béy seen waar ci bépp fànn. Euh, noo gisee taxawaay jigéen ñi également ci commune Padois. waaw taxawaay bu rafet la xam nga jigéen moom lu mu yor rek day rafet. Hmm. waaw taxawaay bu rafet la ndax booy xool pratiquement ci commune Padois jigéen ñi rek ñoo fi am ndombal tànk. am na ñoo xamante ne liggéey nañu ba yàlla war sa leen jot nañ seen nombre tànk am na ñoo xamante ne nii fa ñu nekkoon fan la ñu ne am na ñoo xamante ne nii daal avancé nañu ma daal commune Patte d'Oie si wàllu jigéen ñi avancement dong laa ci gis ku ci nekk liggéey nga fi nga nekk béy nga sa waar ba yàlla may na li nga war a may léegi nag mu des mooy delloo ko population yi nga xamante ne woon rek moom moom ñoom ñoo taxoon ñu yegg foofu ñoom lañ fi représenté ku ci nekk rek taxawaay ba nga war a am ci moom ñu am ko xam naa ne sax ñu ngi koy ñu ngi koy taxaw yéen la président euh, gën a bëral loxo ci biir commune bi yéen. amiin amiin ah mais noonu la demee sax honorable mhm. yéen jigéen ñi. yéen la gën a bëral ah, loxo de xam nga jigéen ñi moom dañoo ëpp dañoo ëpp taxawaay ëpp engagement gën a comme ëpp leen ak tamit ay pexe. Mhm. xam nga jigéen moom booy wax jigéen rek pexe pexe moo tax. ama góor lu bari mën na toog sax di mënu ko dox mënu ko lijjanti mën na toog di di xaar wala dara mais jigéen ñi da ngay gis ñu xëy mu jaral leen ñu dugg bureau génn bureau taxaw fii wax fii xaritoo kii kolonte kii rien rek pour am li ñu bëgg ku nekk rek ak sa façon ñii nga xamante ne ñoom liggéey rek lañ gëm dañuy xëy suba ba jënd so ci terrain bi la ñuy nekk di liggéey jël seen yëpp wekk yàlla ñii nga xamante ne dañoo am leneen ku nekk rek yoon bi nga mën a jaar ba gis seen bopp xëy na bu tombee ci biir Patte ci ay jigéen tamit dañ koy sant yàlla rek te xam ne tamit statut jigéen a ci yokk waaw Euh, tey euh, jigéen ñooñu noo leen di gérer euh, gis nañu tey dañoo weeru ci yow yàlla suturaal la aussi nga leen di jàppale xëy na socialement wala tamit ci yeneen ak yeneen loolu aussi xëy na yombul mais gestion bi naka lay demee surtout parce que dafay jar aussi ñi nga xam ne ñu déglu émission bi xëy na peut-être ñu mun a xam fu ñuy teg seen tànk. waaw xam nga jigéen yooyu. wéeruwuñu sama kaw hmm. te gérer wu leen. wéeruwuñu sama kaw te gérer leen. dañuy jàppalante xam nga nit ki soo koy woo si jàppalante nga ciy gis sa bopp mu ngi ciy gis boppam loolu mooy solidarité façon boobu laa nekkee ak ñoom wéeruwuñu sama kaw jiitewuma leen ah euh, kiiwuma leen euh, gérewuma leen mhm. du gestion dañuy jàppalante est-ce que yaa ngi may dégg solidarité la boo xamante ni nous sommes d'égale dignité ku ca nekk da ngay indi la nga am ñu jàppalante mhm. man xëy na yàlla teg na ma si station boo xamante ne mën naa lijjante am naa ay fonds ñoom it am na lu ñu ma mënal ndax bu ñu ma jàppalewul élection du ma dem su ma wootee bu ñu ñëwul sama woote du neex bon xam nga ne du yaa leen di gérer wala yaa leen kii. Mhm. da ngeen di jàppalante ku nekk fa mu ne waaw loolu la. jàppalante la ak ak yëg-yëg. waaw bien sûr jàppalante kay boo ko waxee yëg-yëg la. Mhm. xam nga ki nga taxaw ngeen di jokkoo ba ngeen di jaxalante bay war a toll ci 400 ak 500. Mhm. yëg-yëg am na fa. yëg-yëg a fa jiitu moo tax mun a am. Euh, tey bu fekkee dam na benn message particulier bi nga xamante ne euh, war nga ko lancer ci ci ci tey euh, ci journée jigéen ñi ban message lay doon laata ñuy yëkkati jotaay bi ndax luy desee ci waxtu yi daanaka bëreetul. waa message bi may lancer jigéen yëpp moo ñu raxas xol yi. joxante loxo jàppalante dans la solidarité gis nga solidarité jàppal ma jàpp bu amulee dara du dem. te nañu bàyyi di xoolee jigéen ñi seen i noonu di bàyyi jigéen di xoolante. comme ay noon di xoolante comme ay wujj amul njëriñ daf ñuy tardeel rek li ma leen di lancé daal mooy ñu raxas xol yi te ku nekk lu ko yàlla may nga xam ne lii yàlla moo ko ko may ku nekk tamit la la yàlla jox nga xam ne lii yàlla moo ko jox nit ñi noonu la ñu war a nekkee ku nekk nañu nangul nit cër bañ ko jox ndax nit du cërale yàlla mooy cërale hmm. ku nekk cër bañ ko jox nangul ko ko buñ ko defee rek àdduna bi neex te nag àdduna yërmaande fa ko yàlla di teg di teg loxoom mooy ci ay nit ñu raxas seen xol ànd nekk benn jàppale yow boo xëyee duma la jox dépense duma la jox ndékki duma la jox reer kay yow maag yow lu ñu war a jotee bu nu ma la ko xañit maag yow waruñu jote dara li ñuy boole mooy cité bi la na cité bi dox na fiy bax kana ciy jiitu njiit yàlla moo koy tànn am na ñoo xamante ne seen leadership dañ ko judduwaale ñii seen leadership dañ ko dem jàngi ñii seen leadership dañ koy jéem a incarné mais bi ci neex mooy bi la yàlla jox bu yàlla jiitalee nit nag tànn ay leader am teg ko ku bëgg a noppalu rek da daf koy nangu boo ko nangoo rek jàmm day am problème bi yëpp mooy ñàkk nangu nañu ubbi xool yi nangu di nangu lu yàlla dogal jàppalante nekk benn te suñu combat nag ci wàllu femme ñu taxaw si bu baax ku jóg di ci liggéey que ça muy ci nguur gi que ça soit ci société la fu mu nekk lépp lu nit yëg ci luy avancer jigéen rek. man damay woo jigéen ñi ñoo taxaw si ndax suñu ndam lay doon ëllëg. mu ngoog daanaka egg nañu sax fi nga xamante ne foofooyee sax la ñu war a yëkkatee li nga xamante ne uh, moom mooy uh, jotaay bi honorable uh, député madame Paye xam naa ni aussi am na yeneen yëngu-yëngu yi nga xamante ñu ngi lay xaar donc duñu la mën a retenir ci lu yàgg ci noonu sax ñu bàyyi la kon nga daal di joxe li nga xamante moom mooy sa mot de la fin ngir ñu mën a kon tënk li nga xamante moom mooy waxtaan wi. waaw Modou Fall di jiital si rek yow di la remercier yow mi ma permettre ma ñëw exprimer wu di remercier jigéen ñi may àndal di def témoignage bi di remercier jigéenu commune Patte d'Oie ak département Dakar bi yëpp képp koo xamante ne rek sama xarit nga sama nawle nga taxaw nga jàppale ma maa ngi lay maa ngi lay remercier di leen sargal nag ci journée bi mars bi di ñaan yàlla may ñu ndam may yëkkati ñu gën ñoo yëkkati nañu sax gën ñoo yëkkati ba ci biir àdduna li ñu fiy dund ci ay droit ñu am ko war a mën a taxaw loolu daal laa amoon li may wax di remercier tam sama yaay remercier madame madame Marème fay Sall ak le président Macky Sall waaw ñoom ñoom vraiment di remercier it vraiment waa ju baax ji nga xamante ne moom laa bàyyi sama kër. Mm. te nga xamante ne lu ma mën moo si jàpp. ñoo liñ naan pecc olof naan peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ci mbagg ya mhm. xam ngeen ne man sam papa dafa teel a gaañu sam maam laa nekkaloon sama yaay wax naka mhm. ba ñu ñëwee tamit Colobane ñibbisee Colobane ñu ma nekk sam maam ba moom ni ñu sëyee bu ñu sëyee ba léegi yàlla ak ñu boole nekk vraiment sonaluma ci dara naqaralu ma ci dara vraiment pay maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla may loo wér may la gudd fan jàppale la bàyyi la sa kanamu njaboot ba lépp loo investiroon ci ñoom yàlla fay la ko vraiment je vous remercie yéen ñëpp maa ngi remercier ñëpp di remercier Sénégal yëpp. kon mbokk yi mu ngook ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen di gërëm leen di sant ci euh, teewlu bi euh, mu ne woon kon seen spécial émission sargal jigéen ñu doon ànd nag ak ñi nga xamante ni moom mooy honorable député madame pay di euh, Marie Thérèse Aïda Seck mbokk yi jàngeen jëf